aousubillahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaaraat bu baax di leen ndokkeel di baalu ak di rafetlu ànd bi ñu dellusiwaat ak yéen seen beneen buntu firi gént di wax ne ñu ngi tàmbali beneen liggéey bu bees euh, gën a yokk liggéey bi comme ni ko ñenn ñu doon sàkkoo euh, yokk suñu son yokk lumière bi comme ñu bareen ko doon jàmbat euh, yu baree bari commentaire yi jot nañ yëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé ngir mën a gën a yaatal chaîne bi di wax itam ko am gént léegi da ngay envoyé 500 francs Wave wala Orange ne ci suñu numéro def capture d'écran bi nga am defee transfert bi nga envoyé ñu ko soo paree nga def audio gént yi ci suuf message transfert bi di wax ne mën ngeen ñu topp ci Instagram mën ngeen topp ci Facebook Firi Guent officiel Instagram si di bu yee topp ngeen def comme ni ngeen ñu mënee ci YouTube bi. di leen ziarat bu baax a baax di wax ni live yi tàmbali na chaque samedi mën ngeen ñu xaar YouTube Instagram incha allah tey ñu ñëw ak yéen ci seen beneen buntu firi génn tey ñu ñëwaat ci gént xar maanaam li ma jublu ci gént xar tey damay ñëw ci kuy maanaam xarum kuy ku ne xam na ko incha allah yeneen détails yi dinañ ci ñëw kuy ci gént gis ko 98 pour cent ci gént baax na baax na lool dina ñëw ci détails yi li ngay njëkk jàpp mooy danga gént di ren di xarum tabaski ci xale bu jigéen bu amul jëkkër xarum tabaski nga gént di ko rendi jàpp nga ne tey bisu tabaski la jigéen bu amul jëkkër gént di rendi xar lan lay firi danay firi jëkkër ju baax te mën na ci am njaboot gu barkeel xar mu góor ñaar day firi zurriyatan tayyiba daanaka ci jigéen waaye dana firi jëkkër koo xam ne yàlla mun na see may njaboot njaboot gu barkeel incha allah nga jàpp benn ñaareel bi gént euh, xar mbëkk la xar nga gént mu mbëkk la ci jigéen bu amul jëkkër kazalika dafay firi jëkkër moom itam xar mbëkk la ci góor baaxul day firi échec bu la fekkee ci projet booy bëgg dugg booy boo nga seetluwaat mbir ma bu la ci fekkee nga def ci ñaan te xam ne mbir moom mën naa am échec dana ci nekk bu la fekkee ci commerce wala lu mu mën a doon ñaari baaxul xar mbëkk la wax naa ci jigéen bu amul jëkkër baax na waaye ci góor baaxul bu dee jigéen boo xam ne jëkkër nekk ci néegu sëy gént xarm mbëkk la mu góor baax na day firi ëmb waaye yàlla mën na laa may ci ëmb doom bu góor kon nga jàpp ne baax na ci jigéen bu amul jëkkër baax na ci jigéen bu am jëkkër dana firi ëmb ci doom bu góor li ma daan wax toujours ci vidéo yi mooy gént ñeenti nit mën nañ koo gént même gént gi duñu bokk firi ci ñoom wax naa la gis nga yii bu dee jigéen bu amul jëkkër wax naa la jëkkër lay firi ci moom jigéen bi am jëkkër ëmb lay firi ci moom bu dee gu mën a doon baaxul day firi échec ci say mbir bu dee jigéen ji am jëkkër pare nekk ci ëmb lan lay firi boobaa day firi euh, taxqiq ak umniya maanaam ay mébét ay bëgg-bëgg yoo xam ne mën nga ko am yàlla dina dimbale dina sotti kon gis nga ñi gént gént gi bokkunu ku ne ak sa firi bopp ñaareel bi al kapsul aswad xar bu góor nga gént ab kuy nga gént bu ñuul laa bu ko wax ci góor lan lay firi day firi makkaan aliya maanaam place bu kawe moo xam ci liggéey moo xam moo xam alaa kulli xaalin baax na loolu dana fi yëkkatiku am place bu kawe baax na gént xar nii rekk ci góor baax na lool lool xar bu góor ci biir gént yi gën a baax la bokk waaye boo géntee mu mbëkk la moom baaxul xar kawaru xar kawaru xar ci bépp jigéen di ay jigéen ñépp ñoo ko bokk day firi wërsëg wu yaatu wu nekk ci yoon kon baax na danga gént gis kawaru xar kawaru xar ci gént yi gën baax la bokk ci li gën a baax ci gént la bokk gént xar di dox ci sa ginnaaw xar nga gént muy dox ci sa ginnaaw maanaam xar jiital ko moo gën mu féete la ginnaaw bu fekkee da nga gént jiital xar day firi tafawuq wan najaax day firi yëkkatiku ak réussite bu fekkee xar da laa féetee ginnaaw ko safaan lool la day firi jafe-jafe ak xar-xar gént euh, togg yàpp xar yàpp xar nga gént di ko togg ci jigéen wala ci góor bu amul soxna day firi day firi jëkkër day firi soxna ci góor gu amul soxna gént di ko lekk bu ñor baax na lool danañ ci ñëw ci kanam incha allah jigéen boo xam ne dafa gént dafa nekk wala góor goo xam ne am na soxna am na soxna nekk ci néegu sëy couleur xar yëpp baax na day firi euh, yëkkatiku di firi réussite ci waaye day firi kattan ci moom ba mu des xar bu ñuul xar bu wax naa la ko ca kaw lan lay firi makaana aliya lay firi bu dee yeneen couleur yëpp wërsëg lay firi wala quwa maanaam kàttan lay firi ci bu day yeneen day firi ala kulli xaalin kon baax na gént xar kuy ci jigéen ji nekk ci ëmb dama laa waxoon ba da nga ki ëmb da gént mu bëkk ko day firi euh, mébét yu sotti waaye da gént gis ko nii day firi mawlud zakar yàlla mën na laa may doom bu góor incha allah jigéen boo xam ne dafa gént boroom këram may ko xar dalil waadex dalil na alal hamd day firi ëmb ci moom baax na lool ci gént voilà comme ni ngeen mii ne saafara yi wan nañ leen ko wanati leen ko kii saafara la boo xam ne képp koo xam ne danga nga am jafe-jafe rab la seytaane la lu la mën a sonal na jigéen boo xam ne dalaa tey sëy wala góor goo xam ne dalaa tere am soxna wala loo yor mu yàqu jëlal saafara bi bu dee liggéey moo la sonal jëlal bu dee cat la mën nga ko jëfandikoo dindi ko ci lu gaaw liggéey cat rab seytaane jinn lu mën a doon boo ko jëfandikoo yàlla mën na la dëddale ak loolu ci diir bu gaaw gaaw incha allah mën ngeen jox jokkoo ak ñun ci numéro bi même jigéen ñi xam dañuy yéex a sëy la leen tee sëy na ko dindi lu mën a doon incha allah kii beneen saafara la wax nañ leen ko toujours pour ubbeeku la bu fekkee da nga liggéey jàng ba noppi liggéey te la jëlal yàlla mën na la ubbi ci liggéey bu dee yaa ngi liggéey sa liggéey doxul jëlal yàlla mën na defal ubbeeku ci sa liggéey bu dee bayre nga bëgg mën nga ko jëfandikoo bu dee jigéen boo xam ne jëkkër laa jafe mën nga ko jëfandikoo incha allah ko ci soxla mën ngeen jokkoo ak ñun ci numéro yi incha allah voilà gént kawaru xar ñu may la ko génte moom lu nekk mën a nekk wax naa gént gén naa ñëw ci gént ñu may la xar day fi rizqun wa maalun maanaam wërsëg lay firi ak xaalis li tax ñaari xam nga wërsëg boo ko waxee day jàpp na xaalis gën naa yaatu lool waaye taxdidan xa maal ci la bokk maanaam xaalis ci bopp waaye dana firi xéwal yu bare bare bare bari kon baax na voilà gént jënd ko danga nga jënd kawar dem marché jënd nit ñi xar lañ mën a jënd nga dem yow jënd xar wala kawar rek nga gis lan lay fii day firi mucc ci musiba bu doon ci yow yàlla musal la ci baax na gént rendi xar waxoon naa la bu dee xaru tabaski bu dee xale bu jigéen daa gént rendi xar xaru tabaski day firi day firi jëkkër gént rendi xar ci xale bu jigéen bu amul jëkkër tamit bu dul jour tabaski day firi jëkkër keneen ku dul kii day firi tuub gu ñu nangu ak ataqarrub ilallah maanaam xabul taw maanaam da nga doon jéggalu suñu bàkkaar donc maanaam sa buñu suñu borom bàkkaar wala nga doon tuub tuub gan dana nangu dana firi itam jege sa borom kon baax na lool voilà euh, gént xar boo xam ne amul amul béjjën kuy nga gis li nga baaxoo gis kuy mooy mu am béjjën waaye kuy bi amul béjjën baaxul day firi faible faiblesse su nit ki manqué manqué benn manqué manqué ci jikko wala manqué manqué ci kàttan baaxul daal ci gàttal kuy bu amul béjjën baaxul bi am béjjën moo gën gént ñu may la xar dama laa waxoon bu dee jigéen moo gént jëkkëram may ko xar waaye ak ku mën a doon da nga gént ñu may la xar day firi zuriyatan tayiba day firi njaboot gu barkeel incha allah kenn ku nekk jàng na xisatu maam Ibrahim ak Ismail foofu la ñiy firi gént abbee loolu xëy na détails yi du fi xaj ndax bunt bi yàggul gént xaru tabaski léeg-léeg axyaanan maanaam léeg-léeg li ëpp ci li muy firi day firi yoonu makka maanaam yàlla mën na laa dimbale at mooma da nga ci dem màkk waaye bu la fekkee ci njàqare dana firi njàqare yi xat-xat yi dañ kon ku mu fekkul ci njàqare dana firi yàlla mën na la dimbale da dem màkk bu ku mu fekk ci njàqare day firi njàqare yi dañ dana waxoon naa la ci njëlbeen nga kawaru xar bokk na ci di gën a baax danay firi danay firi research maanaam dana firi xaalis maanaam dana firi koom ci nit ki kawaru xar ci di gën a baax maanaam dana firi yàlla mën na laa jox alal voilà gént xar ci jigéen nit ki feebar kuy ci ki nga xam dafa feeral feebar day firi wér ci feebar shifa xar bu ndaw xar bu ndaw kuy bu ndaw nga gént ci célibataire bu mu mën a doon bu góor bu jigéen day firi jëkkër wala dina firi soxna ñi am jëkkër maanaam góor goo xam ne am na am na am na soxna wala jigéen boo xam ne am na borom kër bi si faama day firi xayr maanaam xéewal waaye dana firi xaalis bu baree baree bari ñaar yu mën na ci firi voilà gént xar muy lekk ci sa kër sa biir kër nga gént gis xar moo xam yaa koy jox lekk wala gis gis nga ko daal muy lekk ñaari maanaa la am imma rizq wa imma tafawuq wa najaax benn mu nekk wërsëg wala mu fi yëkkati ko ak réussite kon li nga mën noon maanaam gént gis xar di lekk ci sa biir kër baax na lool gént lekk yàpp xar bu ñorul da gént di lekk yàpp xar bu ñorul ñu bari dañ lay wax gént lekk yàpp bu ñorul feebar la déedéet yàpp bu ñorul boo xaar firiwul feebar day firi dafay dellu ci euh, euh, sifaat nit ki maanaam comportement wu nit ki maanaam day firi nit ka dafa nekk nit koo xam daa nekk jëwkat nekk yàqkatu der di wax ci deru nit ñi lu ñaaw ku nekk jàng na aaya ci alquran bi yàlla di tere jëw jëw ay yuhibbu ahadukum an yakula lahma axihi mayitan foofu lañ ko abbee gént di lekk yàpp xar bu ñëw day firi jëwkat wala waxkat lu ñaaw firiwul feebar foofu fi muy firee feebar danañ ci ñëw ci yeneen détail gént jënd xar jënd nga xar bi jaayaat ko ci saasi laaj bi ñëwoon na fi bu yàgg-yàgg da nga gént jënd xar ci biir gént gi nga jaayaat xar bi ci góor walla ci xale ku góor ko am jëkkër ku am soxna wala ku góor ku amagul soxna lan lay firi da nga am ñaari soxna bu la fekkee benn danga am ñaareel bu fekkee amagoo soxna tôt ou tard da nga am ñaari soxna incha allah voilà gént xar di dox ci sa ginnaaw waxoon naa baaxul waxoon naa ne baaxul lan lay firi waxoon naa ne day firi njàqareek xat-xat jiital xar moo baax voilà gént xar moo xam dafa dafa dafa dafa ràgg xar mu jeex xar mu tuuti ràgg voilà xar mu ràgg daal ku ne xam na ko baaxul xosaaril am waal day firi ñàkk sa alal baaxul xar bu ñuul ci jigéen bu amagul jëkkër day firi jëkkër incha allah waaye jëkkër jooju da nga ko réccu maanaam jëkkër joo xam dana la takk ba pare waaye doo ci am lu la neex divorce mën na ci am xar mu ñuul ci jànq baaxul jëkkër lay fiir waaye jëkkër ji dina doy waar xam multicolore ci xar maanaam xar moo xam dafa am ay couleur yu bokkul ci jigéen boo xam ne amagul jëkkër day firi texe day firi réussite baax na lool gént ñu may la xar ci góor goo xam ne amagoo soxna waxoon naa la fële mën na firi njaboot gu barke waaye léeg dana firi yàlla mën na laa may soxna soo xam ne koñ bi yëpp wala sa dëkkandoo yëpp maanaam taaram dina yéem ñëpp waaye jikkoom mbaaxam dina yéem ñëpp soxna su baax waaye soxna su am taar yàlla na ko yàlla defal ñëpp voilà xëy na ñu ngi jeexal euh, xar bu weex xar mu weex ci góor wala ci jigéen ko mën doon baax day firi réussite imma najaax wa tawfuq tafawuq wa najaax maanaam yëkkati ko réussite wa imma wazifa maanaam dina firi palaasu liggéeyukaay wala mu firi xibaar bu neex incha allah xar bu weex ci góor boo xam ne célibataire la léeg-léeg dana firi yi ma la wax benn mu nekk réussite moo xam ci njàng wala ci sa liggéey wa illa dana firi liggéeyukaay wala xibaar bu neex ala kulli xaal mun ngeen ñu xaar ci beneen vidéo ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.